Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée volet, merci de wéy di like merci de wéy di abonné merci également gars yi di bàyyi seen i commentaire mbokki sénégalais yi également ñi nekk ci diaspora bi ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci l'hôpital hôpital sécurité du feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire gi ñu defal moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dee droit doona suñu borom xëy leen àjjana fi daw si gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu mais également gars yi abonné leen bës ci cloche notification pour jot vidéos yi en masse et en exclusivité Cissé ñu fas yéene waxtaane li nga xam mooy donc kii di Lamine Camara euh, décisif et qui voit rouge qui di Mbaye Niang et aussi qui a ramené ne donc Boulaye Boulaya buteur et décisif et ça a chauffé gars ça a chauffé dans les vestiaires du Bayern de Munich loolu ñu fas initié mais d'abord qui nga xam mooy Xavi Simons nee na Mbappé moo wax conseiller ko ne ko saay euh, joueur amul 23 ans amul 30 ans amul dara âge amul si football mu ne boo amee 21 ans entraînement ak aussi ngay a lu ëpp li moi qui am 25 ans am yow mi am 21 ans à joué donc loolu la Mbappé pour boo ko ne amul âge ci football motivation kese la ki nga xam ne également moom ngeen Samuel Umtiti moom daal proposé ne ay service am Inter de Milan ak aussi wa AS Rome nga xamné ñom actuellement dañuy set défenseur grand bi nga xamné Skriniar day daal di dem Milan aussi bëgg renforcer secteur défensif bi ak blessure yi mu am ki nga xamné également mom ngeen di eh, gis di McAllister McAllister nak ñi di wa Liverpool ak wa Manchester United ñoy xëccio pour daal di recruter donc le joueur argentin de eh, Brighton qui di eh, McAllister ki nga xamné nak moy Ikay Gundogan mom nak Ikay Gundogan actuellement gaay yi amul ben accord de principe bu mu am ak même club même bu fekkene ñi di euh, Barça a priorité par rapport li donc dossier bobu di euh, Gundogan le joueur de la nationale Mannschaft di Mauricio Pochettino moom dal mi ngi gën pour nek le nouvel entraîneur euh, du euh, des Blues de Chelsea gannaaw bi nga xamné nak ki di Nagelsmann mom dafa daal né mo donc euh, ci ne nii les gars japonais, jàpp mën na daal di yanu ndombal tank bobu koy jël ki nga xamné moy Kaiser magnifique Bambali Mane Sadio Mané également la machine à démarrer lafchat lafchat la cat macha allah ko Sadio aujourd'hui buteur comme j'ai dit un but ou xamné nak donc avantage jox ko ñi nga xam donc wa Bayern mais finalement deuxième mi-temps ils ont sombré loolu nak ki nga xamné sax mom moy Oliver Kahn wax na ko ak aussi Salia Medzic ak aussi Herbert Hainer le Bayern gars nak même ah a 3 buts à 1 et pourtant ñu mën a 1 but à 0 Ça, a jox l'avantage avantage mais deuxième mi-temps mom c'était du n'importe quoi n'importe quoi malheureusement donc le Bayern qui a perdu donc li nga xam moy donc match bo xamni ne waru ko won perdre. tax dans les coulisses ñi nga xam moy donc dirigeants yi nañ ci joueurs yi wax carrément qu'est-ce qui se passe li a ah, dem parce que nous on essaie de vous mettre dans tous les euh, dispositions nécessaires mais amna lu xew dal Bayern le leen ko loolu tay mom dal dañoo yooxu ci li nga xam moy vestiaire yi wax seen euh, doléance mais aussi ki nga xam moy donc Thomas Tuchel en six Belle victoire en six matchs une victoire pour Thomas Tuchel mi nga xamné ne gars yi dafa ñëw ay élimination euh, di enchaîner wu donc muy Ligue des champions également Coupe d'Allemagne mais aussi en championnat ki nak di Stéphanie Frappard gars yi de tout à ñu frappé ko mais dal ay saago yu ñagas lañ ko doon wax gannaaw bi nga xamné dafa tirer tiroon penalty pour waa Auxerre après tamit may na penalty wa Auxerre bi nga xamné donc mu ngoog mooy ñoom Mbaye Niang donc daf leen njëkk a penalty contre eux donc pour Lille après mu tiraat penalty Mbaye Niang Mbaye Amady Niang aujourd'hui encore buteur qui a marqué

passe décisive am na fi poteau ah, hein def na fi récupéré na fi benn balle boo ne bu mais aussi am occasion yu mu raté moom nag il a été décisif mais malheureusement finalement dafa daldi carton rouge à la 79e minute lamine camara carton rouge xam nak mo réduire à 10 euh, malgré que né ñom fi ils ont donc une victoire bo xamné gaay mo la deuxième place ñuy gëna jégué li moy monter en ligue 1 euh, française lool nañ di ñaanal ki nak di boulay boulay il a encore frappé buteur et passeur décisif au total 11 buts 6 passes décisives pour qui nga xamné nak moy donc l'attaquant sénégalais l'homme fort de Aliou Cissé El Tactico l'attaquant de pointe de cette équipe nationale du Sénégal nga xamné mi di am confiance di gën a bu boppam Boulaye Dia qui s'épanouit du côté de Nitana té encore il a participé à la victoire Double passe la def passe Lol la ki nga xamné mooy donc ki di Boulaye Boulaye Dia def gars yi c'était donc les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir Souba hein. su le ci yéen le su bëree suñu le bu len faté le jeu concours demain bientôt Abonnez-vous également lien baa nga noonu ma ci kaw épinglé ko pour Baba Show foofu aussi amna jeu concours et tout on va parler de l'histoire du football du Sénégal et tout jaa ngeen jëf